asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM daleen a jàmm ci seen émission SOS santé ñu am mbégte di ci dalal tey ki nga xam ne moom mooy docteur colonel Elimane Amadou si moom nag mu ngi nekk koo xamante ni xam-xam dafa màcc ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu kon wàllu pharmacie wàllu garab mu nekk nag industriel nekk expert koo xam ne xam-xamam màcc na lool ci wàllu lépp lu jëm ci garab ak wàllum paj waaye comme nettali ci gémmiñu borom la gën a neexee dañ koy may rek mu nuyoo mbokk auditeurs yi bu ko defee mu wax ñu itamit liggéeyam ci euh, ban anam la la tënkoo mu expliquer ñu exactement lan mooy euh, domaine bi nga xamante ne ci lay yëngu. ah jërëjëf madame Diallo waaw euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. di leen nuyu di nuyu bépp auditeur u réew mi di ñaan émission bi muy émission bu nga xam ne ni dina am njëriñ ci ñi nga xam ne ni ñoo koy déglu ba ñu jublu ci application yi ak respect conseil yi nga xam ne ci lañ leen di joxe. di la jaajëfal bu baax euh, voilà docteur euh, si nga nekk koo xamante ne da nga nekk euh, colonel maanaam. ci l'armée gi nga nekk itam docteur donc mu am ñaari cër yoo xam ne ñun la ñoo la ko war a jox <laughs> donc di la jaajëfal ak absolument ci déjà disponibilité bi ak wuy si bi nga xam ne wuy si nga ko tey ji ci suñu émission yaa ngi wax sànq que ni expert industriel nga ci wàllu pharmacie nga nekk aussi koo xam ne da nga yëngu ci wàllu chimie ak yooyu mën nga ñu expliquer un peu euh, ci sa liggéey naka la tënkoo daal. waaw euh, dëgg la ci suñu biir cursus euh, ñun yàlla dafa def ñu jaar ginnaaw formation militaire bu ñuy def bi école militaire de santé dañu dem def pharmacie spécialisé wu ñu tànn juróom benn ñi nga xam ne ni ñooy meilleur pour def li ñu naan industrie pharmaceutique mm-hmm. parce que dañ toog nañu benn moment bu nga xam ne dañ ne ah suñu réew yi dañuy jënd garab jënd garab donc il faut que ñu am ñi nga xam dañuy xarañ ci nu ñuy defaree garab pour que suñu réew yi tamit ñuy commencé di defaral seen bopp garab ci la ñuy tànnee juróom-benn ci première promotion bi ci laa bokkoon ci laa embrassé donc euh, carrière boobu ma dem nag euh, def ay formation bitim réew université Japon université pour def production quality control en technologie après dem également Boston université du Massachusetts pour nekk expert auditeur des euh, ay affaires industrie mm-hmm. donc euh, ñun dañuy non seulement defar garab waaye dañuy saytu lu nekk ci biir garab yi nga xam ne dañ koy contrôler mm-hmm. di xool ndax méngoo na ak euh, li nga xam ne ni moom la ñu xaar ci biir donc euh, ñu gis nii que réew yi nga xam ne ni mooy réew néew doole yi souvent dañ leen di yónnee ay garab yu nga xam ne ni dañu koy dañuy dañuy changer li nga xam ne ni moom moo moom la ñu wax ni moo nekk ci biir pour faj nit ki donc ça veut dire que non seulement du faj nit ki problème lay doon mais dina koy mun a indil beneen jàngoro bu bees léegi nag mhm. ñun non seulement dañuy spécialisé wu ci contrôler loolu mais dañu spécialisé wu ci nu ñuy defaree garab garab ak nu mu munta mel garab balaa kay defar li nga xam ne day jëm ci wér gu yaram dafa am ay normes yi nga xam ne ni ay exigence sax la su ma neexee euh, wax loolu euh, yi nga xam ne ni moom la ñu war a respecter pour ñu mun a wax ni garab bi nit ki mën na koy utiliser parce que garab non seulement mun na faj waaye ci wet à côté mun na nekk benn euh, composant bu toxique alors léegi donc loolu yëpp dañ koy vérifier waaye am na ñu nga xam ne ni tamit seen xalaat dafa di xalaat bu nga xam ne ni ñoom wutum xaalis moo leen moo leen kii mhm. dañu jël dem copier def li nga xam ne ni day niroo garab bi te pour ñu mun ci am xaalis di ko jox ay nit sañ am nañ sañ-sañ bi di leen ko jox ñu koy jël fekk du leen faj te boo moytul sax mun na leen rey mhm. waaw loolu euh, loolu lay wax les mal intentionnés mhm. moo tax ñu créer ay laboratoire de contrôle ci pays yi yëpp pour mun a assurer sécurité wu malade yi nga xam ne ni ñooy sukkandikoo ñooy jëriñ jëriñ garab yi mhm. léegi defar bi tamit ñun jàng nañ ko spécialisé Fra euh, fële Japon expert nekk nekk nañu ay expert Amérique dem nañu France pour def euh, euh, expert pour bokk ci premier expert en produits de santé de France mhm. de l'université de René Descartes mhm. ñi juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo njëkk def formation boobu man ci laa bokk léegi nag defaru garab defar li nga xam ne ni war nañ ko mun a def fii ci suñu réew mhm. waaye dañu seet ni que ba léegi ñun dañuy jël suñuy garab bitim réew boo kon boo seetoon téeméer ci garab yu dugg juróom-ñeent fukk ak juróom yi dañ koy jëlee ci biti donc suñu xaalis de génn donc war nañu xool ñu xam ne ni war nañ am nañu compétence yi nga xam ne ni war nañu permettre ñu mën a euh, fabriquer ay garab fii ci Sénégal. Euh, mu nekk ay explication yu am solo parce que garab moom dafa nekk ci xolu paj donc mu nekk mbir moom kenn waru ko foowee sànq yaa ngi wax ne li ñuy importer garab dafa bari euh, entreprise sax bi ñu ci amoon bi nga xamante ne mooy Médis. Mhm. doon yëngu ci wàllu woowu mu nekk ci ay jafe-jafe jamono ji daal di tëj donc mu mel ni kon ak yi sax yi ñuy am mu ngi mu ngi naxsaay. waaw dëgg la bon euh, MEDIS dafa di groupe bu nga xam ne ni dafa changé tour ñeenti yoon. Euh, MEDIS dama ko xam bu baax. ndax man mi nga xam ne nii euh, industriel laa def su dul woon ni le militaire laa doon mun naa am ma nekk directeur bi. temps yooyu mi ngi tuddoon SIPOA. alors tubaab yi ñoo ko fi indi woon pour yenn produits génériques yi ñu fabrique ko fii. notamment ay chloroquine ñoom ay Kinimax ñoom ah, ah, yooyu yëpp chloroquine bi ñuy wax ci Covid bi. Mm-hmm. ñun man liggéey naa ci unité bu nga xam ne moo doon fabriquer chloroquine. Mm-hmm. alors Médis après dem na ba jóge ci tubaab yi dem ci euh, Aventis Pharma après mu dem ci je pense Ronpoulenc ñoo ko jëloon après Aventis euh, Aventis mu tudd Aventis Pharma après ñeneen jël ko après mu mujjee. ci euh, tunisien yi. Mm-hmm. waaw ñoo ko jëndoon. alors euh, mais mosul jaar ci loxo sénégalais Sénégal amu ci woon pourcentage. Mm-hmm. waaw donc employé yi nag ay sénégalais la woon. Mm-hmm. waaye ñi ko moom waa bitim réew la. ba ci MEDIS bi. alors MEDIS dem na ba taxaw lu tax mu taxaw dafa di dañu amul politique. de protection ci production ci produit yi nga xam ne ni ñu ngi koy fabriquer fii Sénégal donte dañu ne ñun dañu bëgg a assurer la disponibilité mooy que foo toll ci réew mi di nga mën a am garab yi nga xam ne ni mooy garab yi nga xam ne dina mën a faj les soins de santé primaire Euh, ñu ñu ciblé ay yenn garab yi nga xam ne générique non seulement euh, euh, loolu ci suñu politique la bokkoon. Mhm. mais dañ dem bi ci biir ñu rendre compte ni que yooyu war nañ ko fabriquer mais normalement bu fekkee ñu koy fabriquer mu war a répondre à norme de qualité. Mhm. gouvernement bi dafa waroon ne ah ñii de il faut que ñun ñu consommer seeni produit kon produit bi nga xam ne ni ñun ñu ngi ko tuddee produit X du fi dugg ci biir réew mi ah ñii la ñu privilégié parce que seen produit mooy produit bële euh, même qualité la te léegi comme ça dina tax usines yi nekk fii mun a fonctionner bu baax. Hmm. donc ci politique bi nga xam ne ni euh, gouvernement bi. moom la ñu war a adopté pour défendre unité yi nga xam ne kon nga bëgg ne gouvernement protégé euh, li nga xam ne moom mooy expertise nationale bi. puisque doomu ay doomu doomu Sénégal ñoom ñoo ciy liggéey. waaw lë euh, bon dama bëgg a wax ni MEDIS sax. Mhm. Euh, fu mu nekk nii ay sociétés yu bëri ñu ngi bëgg a ñëw. Mhm. waaye bu ñu xoolee li fi nekk ci ay usines yi nga xam ne dañuy fabriquer garab vraiment dëgg dëgg nag bëriwul. Mhm. te MEDIS sax lu muy def nombre médicament yu muy def yi dafa limité. dafa waaw mais quand même waroon nañ leen protéger ba nga xam ne ni lépp lu nga xam dañ koy fabriquer ñun bu ñu ko exporté wul au moins ñun sénégalais ñu koy. ñu ñu koy consommé ñu koy jëfandikoo. parce que man lu ma wóor ba wóor man mi liggéey foofu xam naa ni que produit de qualité produit euh, tubaab yi ñun ñoom ñoom ñoo ko fi indi. Euh, euh, process yi ak yëpp c'est les process euh, des les normes internationales donc dañ doon jël garab yi aussi di ko exporter dans la sous-région mm-hmm. di ko yóbbu ay ay Côte d'Ivoire ak fu nekk donc MEDIS waroon na mun a fonctionner mais bu fekkee ci kaw bëgg-bëgg gouvernement bi il faut que mu nekk véritablement une volonté politique te bu ñu mënoonu sax sañ wax muy appartenir à des Sénégalais moo ñu doon gënal encore te loolu mun na nekk compétence yaa ngi fi ak lépp. Mhm. te même bu fekkee ma di sax euh, fonctionné wul wala autre chose ñun war nañu mun a créer ay yeneen usine à côté yi nga xam ne te jarul mu rëy loolu histoire boobu mun naa ci dellu siwaat pour gën leen mun a leeral li nga xam ne ni mooy actuellement importance bi nga xam ne ni. mooy dañu war a monter ay usine fii ci Sénégal. Mm-hmm. waaw. pourtant euh, njiitu réew mi waxoon na ko ci benn forum bu mu demoon wax ni nañu fexe daal ba industrie pharmaceutique Sénégal daal di dox mais gis nañ ne benn pas amu ci daal pas boo xam ne au moins lii lu concret la. lu bu weesoo ay wax. Euh, madame Diallo. Mm-hmm. Euh, di nga ma tey may ma wax. Mm-hmm. ci domaine garab. domaine garab dafa di domaine bu nga xam dafa sensible. dafa bari lobby mën naa am sax ñun bëgg nañu am nañu xam-xam xarañ nañ ci waaye condition yi ngi ñuy permettre ñu mun a am entreprise yooyu moo dul réuni pour ñu ki ñu am ko xalaat yi dafa di xalaat yi nga xam ne ñaar fukki at ci mm-hmm. gannaaw fanweeri at ci gannaaw xalaatoon nañ ko moo fi nekkoon ba léegi te dara yënguwul te dara yënguwul mm-hmm. am na lu nga xam ne ni. am na lu ci biir daal lu li nga xam ne ni. Euh, man ma ko wax. waaye nañu xam leen garab fu mu nekk nii boo demee ba ki nga xam ne ni mooy Bill Gates di yëngu ci affaire électronique mu tourné dem naan day dem ci domaine bu nga xam ne ni mooy domaine santé créer d'abord fondation ba di jublu ci fabrication ay garab ak ay vaccin donc médicament. ñëpp xam nañ ko yàgg nañ ko wax dafa di domaine bu nga xam ne ni dafa indi xaalis. Mm-hmm. mën naa am bon euh, ñoom dañu bugg a am monopole bi di fabriquer garab yi di di ñu ko jaay. ak ay réglementation régulation parce que dañ ne fa garab boo ko fabriqué di nga toog fukki at yi nga xam ne ni yow yaay am euh, propriété bi parce que yow yaa defoon recherche bi. fukki at yu wees wee ci lay doog a tombé dans le domaine fukki at bi yëpp lu ci xaalis yow yaa koy moom. lu moom te yow yaa am exclusivité bi pour fabriquer mm-hmm. donc ma bëgg a wax ne nii que fu mu nekk nii euh, ñun ñoo war a jóg pour xeex ak organiser wu. naka la ñuy mun a monter ay unité de fabrication surtout que euh, man suma xalaat moom mooy Covid bii muy corona. ñëw na fi bett ñëpp bu mu fi duggee tamit dafa perturber suñu santé suñu organisation yi perturber suñu suñu alimentation yi suñu côté alimentaire bi dem nañu ba nga xam ne ni ñun jaaxle woon nañu parce que amuñu woon masque loolu yëpp war nañu yee pour que ñu xool après covid bi li ñu dal ni bu ñu dalaat mais maanaam ñu am ci ay jàngat ay leçons yoo xam ne waaw jàngat yooyu mooy ah toog nañu feebar bi dugg na xam nañ ne ku nekk am nga méthode booy xeexee feebar bi réew boo dem am nga sa sa yi Sénégal organisé wu na nag quand même sous l'égide du président de la République avec le ministère de la santé et ñi nga xam ne comité bu ñu créer bi ñoom ñëpp ñu xool ah am na lu fi xew de am na lu fi dugg de mu ngi faat nit ñi am na ñu mu laal fële léegi donc il faut que ñu xool ñun tamit nan la ñuy jëlee fagaru. pour que feebar bi taxaw. yàlla def na ni am nañ fi ay ñooy xam ne ni ay compétences yi nga xam ne nii dans divers domaines ñu rassembler leen créer benn comité bu nga xam ne ni ñoom ñooy xool yoon ban yoon la ñuy jaar pour mun a fexe ba euh, taxawal feebar bi. ku nekk vraiment def nga sa liggéey. nu mu waree aussi bien côté santé ñi nga xam ne ni ils en première ligne ñoom ñoo exposé wu woon. mais aussi les euh, acteurs économiques, euh, les acteurs politiques, euh, les personnes bénévoles ku nekk indi na ci participation parce que président bi bu mu defee mission am dafa ne léegi dañuy entrer en guerre il faut que ñëpp taxaw ci. Mhm. bon mais bu ñu demee dañu jóor dóor ay génne ay nu mu tuddati ay mesures. Mhm. mesures yi. mooy ah léegi ci luñ gis feebar bi nga xam ne daf ñoo bett parce que virus la mm-hmm. du bactérie te loolu boo ngeen bëggee ma dellu si waat ci mm-hmm. virus amul amul garab bu koy faj man spécialiste en chimie thérapeutique man man loolu moom te mën naa teg sama loxo ci safara te wax naa ko ci samay émission télé yi nga xam ne ni jàll naa ci yëpp wax naa leen ni que virus dafa di xeetu euh, euh, microbe ba nga xam ne nii bu duggee ci yaram lenn amul benn garab bu nga xam ne ni mun na ko actuellement rey lu dul que dañuy développer immunité wu euh, nu mu seeti euh, nit ki pour que moom mu mun a rey nit ki rek moom mu mun a développer immunité pour rey ko donc. Mm. Euh, docteur affaire immunité bi bëgg naa ñu wax ci parce que loolu c'est important. mais fi nga wax nii da ne virus dafa nekk loo xam ne amul lu ko mun a. faj kon est-ce que tey espoir am na ci ci Covid bi ak vaccin yi ñu ciy wër ak garab yi ñu ciy wër ak yooyu est-ce que espoir am na ci. waaw xam nga kon euh, mun nañ nekkoon peut-être ci impasse lañu la ñu nekk. waaw xam nga ñun. Mhm. on est des pays en développement ci nga pays riche yi ñoom dañ jaaxle mais xam nañ ni que. Mhm. d'abord feebar bu ñëwee dañuy jéem a ràññee lan mooy feebar bi lan la lan moo de nekk ci lan moo indi feebar fekkee ni microbe moo ko indi ñu xam ban xeetu microbe la loolu yëpp def nañ ko depuis bu mu commencé Chine. Mm-hmm. waaw léegi bu ñu xoolee ñu ne ah kii virus la mais virus ci luñ ci xam ci xeetu microbe bu ñëwee ba dugg ci yaramu nit am na virus yi nga xam ne ni du ju indi feebar. Mm-hmm. mais bu fekkee day indi feebar day dem dugg ci cellules yi am na ay préférence am ci biir organisme humain. bii dafa di xeetu virus ba nga xam ne nii dafa préférence am ci lépp lu nga xam ne ci noyyi la jëm. Mm-hmm. donc moom bu duggee rek day dem ci poumon yi waaw bu demee ci poumon yi dugg ci cellules yi nekk ci biir poumon yi commencé yàq virus ñëpp xam nañ ni bu moom du du dund ci deret ci biir deret waaye ci biir cellules yi lay dem mu làqatu foofu. moom pour mu mun a développer wu moom ARN la am. maanaam. boo xoolee li nga xam ne ni moo constitué noyau virus bi normalement ADN la war a am c'est-à-dire que ñaari information génétique ñoo war a ànd waaye moom benn information génétique rek la am léegi pour mu mun a mët. te mu mun a soppaliku il faut mu dugg ci cellule bu nga xam ne ni dafa am li naan ADN pour mu def li ñu naan réplication. Mm-hmm. pour mu mun a ja euh, sukkandiku ci ADN kële donc euh, doo comme parasite quoi waa pour mu mun a ci dund. mun a law law te du multiplier te moom non seulement dafa tuuti mais euh, lawam dafa gaaw. waaw dégg bu duggee mu nekk foofu ci biir cellule. feebar bi de wane na ko moom. waaw yow léegi bu fekkee da jël garab nga ne yow dangay ngay rey garab da ngay rey en fait euh, euh, kii bi virus bi boo ñëwee cellule bi dafa am membrane ci biir organite yi ñoom ñoo ci nekk léegi donc lu muy def mooy garab bi bu ñëwee bu naree dugg pour dem rey kii bi day reyaale cellule bi mhm. looloo tax amul garab léegi li ñu mun def mooy. Euh, euh, nit ki bu fekkee ni feebar bi laal na ko dafay am ay signes cliniques. Mm-hmm. day sëqat yaram bi day tàng du xee euh, du xeet am xeet bu baax feebar yu nga xam ne ni ay infection da koy dal ak yépp ci yeneen germe yu nga xam ci la ñuy profité pour mën a développer wu léegi lu ñuy def mooy bu yaram bi tàngee waaw traitement boo déggee ñu ne traitement dañ naan bu yaram bi tàngee. ñu jox ko luy wàccee tàngaay yaram bi bu fekkee ni yaram bi day metti ñu jox ko luy luy faj metti kii ay comme ay vitamine C su fekkee ni par exemple léegi dafa def infection bi nga xam ne ni euh, ay yeneen bactéries ñoo ko def ñu jox ko ay antibiotique alors euh, donc euh, loolu rek la ñu mën a def moom la ñu wax le traitement symptomatique c'est-à-dire le traitement des signes mm-hmm. mooy lépp lu nga xam ne ni mooy feebar moom nu mu nu mu ñëwee ci moom waaye du tere germe bi mu ngi développé bi léegi li des moom mooy euh, organisme bi mooy yaram bi bu demee ba ràññee gan gi nga xam ne ne moo dugg lu muy def moom mooy day euh, ne ah gan dugg na fi gan dugg na fi léegi donc il faut ngeen xool nag ngeen di créer ay soldats. yi nga xam ne ni gan gii rek la ñuy xàmmee donc ci boobu nag lay commencer. di fabriquer ay anticorps pour léegi qui seront dirigés ñuy dem di jublu ci virus yi nag dina ñoom mën nañ dugg ci biir cellule bi nag. mën nañ fa dugg laax ko dafa. Euh, yi mën nañ ci dem fekk leen foofu. dem fekk leen waaw dem fe dugg ci biir dem fekk leen nit waaw loolu tax nit ñi di wér. Mhm. mais du garab yeeg traitement yu ñuy def yi mhm. boobu euh, xam nga feebar bi am na nu mooy kii da ngay feebar. boo feebalee virus bi day gën a yokk di développé bu mhm. léegi pour que nit ki mun a développé immunité ba mun a wér il faut que mu may ko mu kattan bu nga xam ne ni day nekk en forme pour pouvoir maintenant euh, euh, kii moo tax ñi nga xam ne ni ñooy ñu mag ñi ak ñi nga xam ne ni dañu am ay maladies associées ak ñooñu ñooñu la feebar bi gën a yem. te bu ñu am kattan bu mag mais bu ñooñu ñi nga xam ne ñooñu ils bien euh, physiquement bien. moo tax moo tax quelquefois sax ngay gis ñi ay def traitement asymptomatique ñun tiituñu pour xale yi. tiituñu kii mais ñi nga xam ne ni pratiquement seen organisme yi mënuñu. Euh, xeex xeex bu baax il nga may leen doole pour ñoom ñu mën a fair face à cette maladie là. bu ma jëlee kaawu Sida par exemple aussi ñëpp ñu nga xam ne ni dañuy am Sida Sida par définition tamit maladie virale la mm-hmm. amul garab bu koy faj. Mm-hmm. mais ñu ngi jéemoo a depuis ñaar fukki at. di xool yan garab ñoo kii ba léegi ñu ci. waaye sida nan lay nan lay manifesté woo ci nit euh, virus bi xam nga fii virus bi day dem ci poumon bi mais virus sida xam lu muy def day dem attaqué ji le système immunitaire système bi nga xam ne ni moo war a défendre organisme moom foofu lay dem yàq. moom lay dem yàq ji alors que. dafa am ay germes yu nga xam ne nii normalement du ñu am benn kii ci nit waaye su loolu la wax les germes opportunisme à partir de ce moment yooyu da ciy profité parce que ku ku dugg boo ñëwee rek di nga mën a. def lu la génnaat. parce que amul dara lu nga xam ne ni moo lay def. daa ni réew bu amul ay gendarme ak ay policiers rek <laughs> ku nekk def la neex <laughs> doy may euh, fàttali rek mbokk yi ñu ngi dalal ki nga xam ne moom mooy euh, docteur euh, colonel Elimane Sy nekk nag koo xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram wàllub virus wàllub garab ak lépp loo xamante ne daal dem na ci ci li ni mel tey ñuy waxtaanee Covid bi ak li nga xamante ne moom mooy gestion bi ci gestion bi docteur tey ñu gis ni bëri na. ñi nga xam ne peut-être d'accord nañu ñi d'accord ñu ci ni ko nguur bi mais loolu yëpp quand même effort am na parce que loo xam ne dafa bett àdduna yëpp mais te est-ce que yow d'accord nga par rapport ak li nga fi jot a développé sànq ñiy wax immunité collective maanaam ñu bàyyi virus bi circuler est-ce que d'accord nan lan lan ngay wax ñooñu. waaw euh, euh, jërëjëf euh, madame Diallo encore une fois de plus gis nga xeex bi mu ñëwee. réew bu nekk da nga poser sa stratégie wu bopp boo koy def dangay woo ñi nga xam ne ñoo ci xarañ nga diisoog ñoom ngeen xool ban yoon moo gën a baax parce que yenn bi mi ngi nii nan lañuy def ba mun ko fi jële waaw am na ñu nga xam ne ni nee nañu dañuy def immunité collective a cité c'est le cas de la Suède. am na ñu nga xam ne nii dañ ne dañ traité au cas par cas wala ñu def dépistage au cas par cas nit ki bu ñëwee feebar ñu xool feebar bi signes yi ndax feebar bi la méngool ñu ne ah bon xaal ñu dem testé xool su fekkee ni loolu la ñu ñu confirmer ko ay way ñu jóg nag na dañ koy faji après ñu compter leen nombre yi am na test yi nga xam ne ni ñu nga xam ne dañu adopté ñu ne dépistage massif nga xam ne ni duñu seet képp ku wér ak ku feebar ak ku amul feebar bi yëpp dinañ la test waaw loolu dafa laaj alal dafa laaj xaalis mm, te amuñu loolu donc ñun lu ñu mënoon def loolu yëpp ay réalité yi nga xam ne dañ koy intégré mm-hmm. au niveau des commissions pour pouvoir xam nga euh, jël ay yenn mesures ak ay yenn euh, décisions waaw d'abord Sénégal pays en développement est-ce que am na ay masques non amuñu ay masques fu ñuy jëlee ay masques dañu koy jënd bitim réew alors euh, est-ce que am na suñu benn mbokk euh, bu nga xam ne ni beneen réew bu ko am en attendant ah réew boobu de feebar bi laal nag bon ainsi de suite alors donc léegi pour dellu si ci euh, li nga xam ne ni moom mooy euh, euh, immunité collective am na ñu nga xam ne ni nee nañu moo gën parce que une fois population bi yépp affaire bi laal leen ñi war a wér wér parce que développé nañu immunité ñi nga xam ne ni nag yàlla may leen chance boobu bu leen bu ñu jéem leen faj bu ñu leen mënee faj bu ñu leen mënul faj yàlla def lu mu lu gën alors ay option la waaw mais xam naa ni parce que vaccin amul parce que pour defar vaccin vaccin mooy tax nga am immunité il faut nga xam carte d'identité gan gi ñëw gi te gan bi kenn xamagul exactement. waaw maîtriser gu ko maîtriser ko. nee nañu sax léegi donc pour euh, balaa may génn gaaw. dama bëgg a wax ni euh, euh, vaccin bi euh, doo yeewu rek nga créé ko il faut nga xam germe bi ci lépp nga fabriqué nga xam carte d'identité ci ci ci ngay dooga jël germe bi léegi vaccin mooy lan dangay ngay jël germe bu nga xam dañ ko rey soit nga jël germe bi rey ka walla nga wàññi dooleem après nga jox ko nit ki comme ça bu duggee ñu ne ah gan ñëw na a ah, ci préparer leen soldat yi ñu fabriquer ay soldat ñu développer immunité su vaccin. kon vaccin daal ñu xool matériel partie bu nga xam ne ni mooy partie buy tax ñu koy ràññee pour xam ne ni que virus ñëw na ñu jël parti boobu dugal ko ci nit ki. c' est comme su fekkoon ni virus bi mu ngi ci biir toujours organisme bi dina réagir ne ah gan ñëw na xaaral ma fabriquer immunité immunité dafa am durée am na ñuy durée trois ans am na ñuy cinq ans donc bu fekkee ni par exemple nit ñuy xam ne ni jotuñu am feebar bi. dañuy jël bu lay vacciné ñoom day mel ni feebar bi dugg na leen te feebaruñu ñu développé ay immunité bu nga xam ne ni anticorps yi bu xasee ba fabriqué wu du gaaw a génn ci yaram bi. am na yu nga xam ne ni boo gisee ñuy def rappel sax dañuy def rappel at après benn at pour yëngalaat euh, immunité bi pour que ñu mun a couvrir euh, cinq ans yi nga xam ne ni feebar bi bu fi ñëwoon daanu fi sax du la def dara alors léegi immunité collective tamit forme vaccination la dañu naan bàyyi leen feebar bi dugg laal ñëpp ku mun a laal hmm. bu la laalee nga développer say say anticorps parce que tu es physiquement bien nga feebar ak nga ñàkk feebar après buñ ci paree nag bu feebar bi bu paree léegi ñëpp aaru nañ. problème mooy parce que defar defar vaccin dina jël ay vingt mois dina jël ñaari at. mun na jël ñaari at mun na jël 10 mois xoolal depuis bu mu ñëwee ba léegi nit ñaa chercheur yaa ngi ci biir. mais vaccin ba léegi génnagul. parce que lu lu yomb man liggéey naa ci usine buy fabriquer vaccin Japon. Mhm. xam naa bu baax li nekk ci affaire vaccin. Euh, bu ma demee foofu production quality control and technology of vaccine mhm. and drug loolu laa def mhm. dem naa liggéey naa ci usine bu nekk dans le Shikoku Island ba maa ngi nekkoon Osaka mais six mois yi nga xam ne ni maa ngi nekk ci usine buy fabriquer vaccin pour Amérique d'ailleurs sama mémoire maa ngi ko def ci benn vaccin trivalent bu ñuy wax DPT, diphtéria, tétanos and pertussis. donc c' est un vaccin associé bu nga xam ne ni ñetti feebar la ñu booleendoo hmm, ah comme ça pour vacciner nit ki ci diphtérie tétanos and euh, pertussis. donc euh, ñetti vaccin bu ma boo ko jëlee rek c' est un vaccin trivalent. alors maintenant donc vaccin dama ko maîtriser. parce que dama ko fabriqué. waaw euh, donc loolu la. donc euh, immunité boobu ngay wax collective bi certes euh, baax na mais. Euh, li muy mag ñeent ñi feebar ñi feebar ñi mun na yóbbu ñu bëri. léegi tamit il faut ñu xam réalité réewu Sénégal ñun système bi ñu def bi boo xoolee léegi léegi nii cas yi dafa mel ni dafa gën a yokk. Mhm. parce que nit ñi dañu bàyyi nit. bi ñu defee. assouplissement bi ba léegi. les gens ont entendu par là relâchement. waaw euh, euh, simplement parce que xam nga lu bees dina xam ne ni nit ñi bett nañu feebar bi ñëw na. Mhm. Euh, ñu jékki-jékki rek na la acca yéen ñëpp tëju leen waxtu sàngam ba waxtu sàngam parce que soit la woon soit ñu def confinement moom mooy kenn du génn loolu musiba la après walla ñu ne léegi dañuy def. couvre-feu couvre-feu bi heure sangam ba heure sangam te même loolu après bu couvre-feu jeexee nit ñi dañuy dem jaxasowaat mais est-ce que waruñu woon def confinement partiel ci zone yi nga xam ne période boobu ci njalbeen ñoo gënoon a touché waaw loolu tamit euh, xalaat la est-ce que est-ce que parce que fu mu nekk nii mhm. on se cherche chacun se cherche et ku nekk day xool yoon bi nga xam ne ni moom nga yaakaar ni peut-être bu ñu ko defee Euh, dina baax wala du baax confinement partiel bi lenn la cest à dafa am critères yu bëri foog nga jël ko euh, non seulement euh, mënoon nañu def confinement partiel au départ nit ñi ñoo indi feebar ñu ngi jaaree ci aéroport yi ak xam ne ñoo jóge bitim réew ci réew yi nga xam ne ni moom la feebar bi laaloon mm-hmm. donc foofu lu suñu yi njëkk a ñëw. après affaire bi commencé tasaaro waaw bu ñu ko bu ñu bu ñu commencé feebar bi commencé dugg dakaar ñu dem ñu dégg ko Touba dégg ko ainsi de suite walla ñii walla ñee alors feebar mbas bi commencé nag di di law foofu zone yi nga xam ne ni moom la euh, kii bi laaloon bu fekkoon ni def nañ confinement fermé ko au départ. Mhm. feebar bi dina mun naa am du du dugg euh, man ci li ma man personnellement parce que dama ne bon bu fekkoon ni mënoon nañu fexe ba feebar bi di dugg mais bu ñu ko arrêté pendant un an deux ans euh, il faut que suñu bu yenn doomu réew yi dugg si un jour mm-hmm. bu ñu ne woon kenn du dugg mm-hmm. rek pour aar ñu contre feebar bi sur le plan économique duñu ñu arrange nañu waxante dëgg alors euh, beneen bi mooy le fait que mu dugg fi man pour man euh, il faut que mu dugg fi lu baax la léegi nee nañ nañ jël mesure barrière yi ñu ngi jëm ci tabaski par exemple mais dama la jox benn exemple man démb maa ngi nekkoon marché HLM ak marché bi li muy rëy ak li nii nit ñi kii mais ñi takk masque da nga leen di compter benn ñaax ñett ñooy takk masque ñu si des kenn takku ci masque. waaw euh, ma ni euh, nit ñi xamuñu vraiment ndax feebar bi. am na wala amul. am na ba xam ne am ñu xam ne gëmuñu feebar. donc am na ñu xam ne nee nañu ah est-ce que du euh, nguur gi moo jël benn décision rek pour sonal nit ñi wala quelque chose comme cela. mais fi ngay xamee ni feebar bi mi ngi fi mooy ñu ne leen diw génn na àdduna ñu ngi koy wax ci àdduna bi ci télé yi ñoom gis nañu xam kii nañu mais mënuñu ko gëm mënuñu gëm léegi benn lenn rek moom mooy tax ñu euh, euh, ñu euh, di sol masque ñu def comme Chine ñu def comme France ku sol masque ñu alamaan la commencé woon nañ ko ça avait bien marché mais xam nga dem nañ ba ci biir nga xam ne ni policier yi mënuñu nekk seen liggéey matin au soir di seet nit ñi ndax eh lu tax solo masque wala kii solo masque wala. te ñu am yeneen ñu leen eh, ñoom sax quelquefois seen sécurité seen bopp day exposé wu. Mm-hmm. parce que mun nga dem ci fen fu nga xam ne ni yow kenn nga nga gis fukki nit ñu nga xam ne kii boo moytu ñu dal sa kaw. et puis loolu commencé woon nañ. askan bi waaw léegi euh, moo tax euh, c'est un problème de mentalité. Euh, euh, li ñu war a def parce que ñu ngi jëm ci tabaski léegi yaa ngi gis ñu ngi préparé tabaski mais nit ñi euh, seen xel nekkutul ci corona. Mm-hmm. alors que fu mu nekk nii comme ubbi nañu frontières yi waaw frontière ci région yi daal dindi nañu couvre-feu bi ñu ku nekk comme ni nga ko tàmmee woon def. Mm-hmm. da ngay dem ci sa dëkk dem passé ji fête yi foofu. Mm-hmm. alors du coup. Euh, virus bi ci boppam. Mm-hmm. boo voyagé day voyagé. Mm-hmm. donc dakaar moo doon épicentre bi mooy épicentre bi actuellement. Mm-hmm. mais bu ñu demee bu ñu bu ñu bu tabaski jotee nit ñi déjà dinañ jël kaar yi di resante du ñu sol masque du ñu respecter mesure barrière yi non seulement ça mais aussi bu ñu wàccee foofu seen dëkk yi dinañ wasaare virus bi euh, mbas mi. Et là, donc, il faut sa s'attendre, après la tabaski, à une des ah kii yokkutee feebar bi. Mhm. et puis euh, euh, docteur aussi euh, bu weesoo loolu sax da ngay gis même ci yenn boutique yeeg yi yenn commerce yi nga xam ne bi mesure yi corsé dañ doon def gel si buntu yi def ndoxu raxasoog yooyu. mais yooyu yëpp bàyyi nañ ko. waaw waaw loolu yëpp bàyyi nañ ko parce que xam nga nit ki da ngay dem ba nga xam ne nii luñ naan. bàyyandiku bi ko euh, xam nga contrainte la ko ñëw ñu ne la ah raxasul e defal di e eh, solal masque ainsi suite loolu euh, man dama ko considérer comme contrainte mm-hmm. da ngay dem ba après da ngay lassé wu mm-hmm. nga ni waa lu lu lu am mu jël lu am baax na mm-hmm. nit ñi dañuy toll foofu te état bi dafa di aussi ñoom lu ñu mën def nañ ko mais on n'est pas pays riche en France par exemple ñoom ci seen bopp ak lu ñu di chiri chiri chiri depuis lundi bii passé le port obligatoire de masque. Mm-hmm. mais dañ ne léegi ñi nga xam ne ni mooy les nécessité ñooñu rek la ñuy jox masque mais ñu ci par force dañuy jël kii génne nañu ay ay ay ay loi yi nga xam ne ni ku sol masque mm-hmm. yoon daal na la taal. Mm-hmm. te nit nañ ko respecte ci nga siin bii boo gisee mbas mi demul c'est parce que c'est un état bu nga xam ne ni eh, ñoom foofu caa duñ caaxaane loolu. bu ñu génnee loi nit ñi dañ koy respecté. dañoo yaru. dañoo yaru. Mm-hmm. du yaru bi nag dafa di ñu parce parce que euh, euh, d' abord au niveau des familles la loi te foofu dañuy sanctionné foofu foofu ñoom amuñu caaxaan. donc fii Sénégal boo fekkoon ni sax jàppoon nga diw wala nga bu ko fayeeku dina la saraxu naan la man amul lu ma dundee wala sama sëriñ il faut que ñu dem nga boo ko jàppoon yóbbu ko police parce que mu amul lu mu fayee nga gis euh, kenn intervenir wala sëriñ si interveni mm-hmm. xam léegi bu fekkoon ni par exemple euh, euh, nit ñi dinañu respecter le port de masque kon peut-être que maladie bi dina fexe ba. ndànk-ndànk dina dellu gannaaw waaw. mais en tout cas de moom pour le moom cas ñu ngi gën di am ba pare décès yi aussi chaque jour. waaw décès yi nu mu yokkoo sax euh, dafa jéggi dayoo. man gis naa benn cas bu nga xam ne ni bu nga xam ne ni daaw la génn ah. depuis corona bu mu amee këram. même bon bi bon yi sax dañ leen arrêté euh, du doon sol maskam di yore gelam di julli du dugg professeur la ak yëpp magoon mag la nag mais kenn xamul. dafa contracté feebar bi. affaire bi laal na ko affaire bi laal na ko te pourtant même ñun man bu ñu demaan ci buntu kër gi la ñu yem. et puis j'ai l'impression que ñi nga xam ne ñooy ñooy gën a protégé sax. ñooñu ñoo gën a parfois benn kii de santé benn agent de santé bu nga xam ne ni il se protégeait quand même bien que da doon liggéey kii mais ñii nga xam ne ñu ñuy kii y a cas ñi nga xam ne nii ils ont euh, contracté euh, enfin baal ma wax wolof ñoo ko am nañu feebar bi mais euh, te jëloon nañu mesures yi mu waree alors léegi. feebar bi naka lay wàllee nii. kooku c'est taxawal foofu docteur parce que bëgg naa la poser benn question balaa ñuy egsi foofu est-ce que yow tey gëm nga ni am na ñu am feebar bi maanaam ci askan bi am na ñoom ne am nañu feebar coronavirus bi mu wér te xamuñu ko ñuy continuer seen activité chaque jour di dem di ñëw. waaw loolu am na. Euh, xam nga <clears throat> am na. xam nga dañ ne dafa am test bu ñuy wax test PCR. dafa am ñaari façon test am na test bu nga xam ne nii day wane ni que virus bi mu ngi fi. mais am na beneen test bu nga xam ne du wane ni virus bi mu ngi fi waaye day wane ni que virus bi jaar na fi donc test bi mooy test virus bi moom la ñu PCR test beneen bi mooy teste que virus bi jaar na fi donc bu fi jaaree. nit ki ça dikk nit ki développé na immunité ba wér. test boobu est-ce que kii na fii. voilà kooku la ñu bëgg a dugal Sénégal pour xam pour pour répondre sa question boobu mais boobu fu mu nekk nii presque pare na mais am na ñu nga xam ne nii nee nañu commencé nañ ko def ba en France ñu ngi koy jaay benn 20 euros nga xam ne nit ki mën nga testal sa bopp. pour xool ndax mu amoon nga ko wala amul nga boo ko amee tamit alhamdulilah soo ko amul tamit di nga xam ne ni que euh, euh, euh, yow amagoo feebar bi waaye donc il faut nga continuer aar sa bopp di sol say masque alors question bi nga ma posé bi ci. feebar nu muy wàll feebar bi nu muy wàllee. waaw yaa ngi doon ñëw foofu. léegi feebar bi nu muy wàllee. Mm-hmm. wax nañ ko ba pare. Mm-hmm. nee nañu feebar bi il faut nga sol masque parce que euh, virus bi euh, yoonam voie de pénétration mooy la voie respiratoire mooy noyukaay donc noyukaay bi lan la gémmiñ bakkan bakkan ak gémmiñ am na ñu nga xam ne sax nee nañu day mun na jàll ci bët yi jaar ci euh, larme yi c'est-à-dire waaw après wàcc pénétrer bu ñëwee dem ci poumon bi wasaare wu foofu foofu mooy vraiment milieu bu nga xam ne ni foofu moo ko neex pour mu développer waaye lu mu fa fekk euh, euh, xam nga euh, poumon xëtër ah foofu la échange foofu la ñuy def échange gazeux yi mm-hmm. pour oxygène ak gaz carbonique bi nga xam ne ni moom la ñu produire ci suñu yaram mm-hmm. ci lañ koy génnee après jëlaat oxygène dugal ko ci biir dugal ko ci deret bi mu yóbbu ko ci biir tissu yi c'est un de d'échange gaz alors feebar mbas bi bu ñëwee day attaqué liñ naan les alvéoles alvéoles yi fa la échange gaz yi di def defee ay genre mbuus la yi nga xam ne ni ci la gaz carbonique bi bu ñëwee gaz oxygène bi pousse ko bu génn moom mu dugg ci place boobu après ñu jàllale ko mu dem ci deret bi loolu moom mooy tax nit di mun a dund euh, donc ces échanges gazeux son très importants léegi bu demee léegi feebar mbas bi dem attaqué yooyu lié yooyu boo noyee oxygène bi du dem sa yaram yow di nga génne gaz carbonique waaye oxygène du dugg sa yaram loolu mooy indi nit ñi ñuy dem réanimation pour ñu dimbali leen ci affaire u moo tax ci la ñu la créer aspirateur yi booba fekk ne feebaru mbas bi mu ngi continuer di détruire léegi naka la ñu ba arrêté loolu ci nag la ñu ne woon képp nga xam ne ni yaa ngi dem ci stade boobu mm-hmm. boo jëlee fukki nit ñaar ñi dañuy dañuy génn àdduna mm-hmm. parce que li leen di yóbbu mooy ñàkk mun a nooy ñàkk mun a noyyi léegi bu boobaa euh, donc respirateur bi moo lay dimbali pour nga mun a noyyi parce que dootoo mun a am oxygène dootoo alors euh, de sorte que euh, aussi gars yi nee nañ foofu la ñuy commencé def traitement wu chloroquine bi associé ko ak li ñu naan azithromycine chloroquine ak azithromycine bi du ñu rey virus waaye. mun nañ ko néewal doole. mun wala fépp nga xam ne ni foofu la ñu attaqué ñoom ñu mënu fa ñëw euh, parce que non seulement day détruire alvéoles yi mais day favoriser yeneen forme infection yi azithromycine bi gis nañ ni que am na benn rôle bu important bu nga xam ne ni yenn germes yi pati feebar infection pulmonaire yooyu muy créer déjà azithromycine dina ko aar chloroquine bi nag. Euh, bon ku nekk sa stratégie mais ñu commencé ci docteur rawul mm-hmm. après yeneen école adopté ko comme léegi euh, école euh, professeur Seydi. Mm-hmm. waaw ñu ne dañuy topp ligne boobu pour traité bon nee nañ gis nañ ni que amélioration am na ci. bon mais naka lay demee man pour man gëmuma ni chloroquine dina rey kii bi gëmuma ko. parce que mooy euh, boo xoolee au départ li ma leen waxoon ci virus bi waaye mun na am chloroquine boobu parce que chloroquine bi bu duggee ci yaram en tout cas li nga xam ne ni mooy virus yi nga xam ne ni ñooy circuler ci sang bi mu la ñuy wax la virémie euh, virus bi nga xam ne mooy circuler ci sang bi suñ jëlee chloroquine bi chloroquine bi dina na ak wexaayam ak yooyu mm-hmm. mun na euh, waaw rey ñenn ñi ak yooyu dans le sang waaw donc wàññi virémi bi donc par conséquent wàññi doole feebar bi. Mm-hmm. loolu rek la surtout ci ñi nga xam ne ni ñu ngi dem ci euh, détresse respiratoire. Mm. donc déjà di nga leen dimbali pour ñu mun a dikkaat daal. ñu mun a ñëwaat. waaw tey est-ce que ki nga xamante ne par exemple am na feebar bi génn kooku y a des chances mu rechuter waat gisoon nañ ko. fii benn cas non non non bi. Euh, gëmuma ko parce que pour man man gëmuma rechute euh, mun na rechuter ci kaw que bu ñuy analyser yow ci deret bi ngay tànn boo jëlee deret bi nga dem analyser ko wala nga laal ci bakkan bi nga xool li nga xam ne ni ay secretion la ñu jóge ci biir buy sécréter bakkan yi ak walla gémmiñ gi buy sécrété de virus bi da ci fu nekk bu fekkee ne mi ngi ci ci sa yaram waaye nit ki mun na rechuter ci kaw mu am liñ naan les germe résiduels au moment de développer son immunité pour faj pour rey feebar bi am na germes yu nga xam ne ni dañuy làqatu. yu rëcc daal. non dañuy làqatu ci biir cerveau yi dem fenn toog foofu. virus moom doy na waar doy na waar. waaw donc euh, euh, euh, loolu benn boobu kooku benn la mais man ci lu may gëm lenn la même bu fekkoon ni virus des na foofu te contrôle nañ négatif dañu waroon quand en plus bu ñu testé bu ñu ko defaatee PCR pour na négatif il foog ñu accompagner ko. par des tests de IgG et IgM mooy yi ma la doon wax. pour wane ni que nit ki am na déjà immunité parce que germe résiduel boobu. bu fekkee ni nit ki am na immunité du rechuter mais germe résiduel boobu bu fekkee ni amul immunité te wér na ah. amul immunité mais da mën na dellusiwaat mais c'est de rares cas. est-ce que comprendre nga mathématiquement tu as leer na. bu mhm. côté boobu. donc affaire rechute yooyu su fekkee ni nit ki normalement feebar bi laal na ko ba wér na donc ça veut dire que na immunité su développé immunité kooku dina ko aar ñetti at ba juróomi at. d'accord. waaw lu mu néew néew at war dootul rechuter. feebar bi du ko laalati mais am na fu nga xam ne ni bu fekkee nii dañ ne rechute am na. soit dafa am germe résiduel ba nga xam dafa génn mais en plus de cela la personne n'avait pas développé l'immunité. Euh, docteur Elimane si yegg si nañ euh, ci njeexitalu émission bi ça passe vite <laughs> ça passe vite dañ lay may rek peut-être nga jàllale message bi nga xam ne bëgg nga ko wax askan wi gis nañ ne aussi wàllu masque yi yaa ngi may wax sànq que ne da ngeen di fabriquer ay masque gis nañu ne expertise u Sénégal aussi feeñ na foofu. Euh, artisans yeeg tailleurs yeeg yooyu ñu ngi defar ay masques. mais bëgg naa sax nga ñëw balaa ñuy jeexal. ci vraiment tey yow efficacité masque artisanal yi. foofu tamit yaa ngi may laal ci sama domaine la. parce que man bon je suis chargé d' assurer la conception des masques pour les forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. pour yenn hôpitaux yi aussi quoi. boo gisee masque bi ma yore nii ci masque yooyu ñu defar la quoi. Mm-hmm. bon masque. Euh, lu tax ñu jublu woon ci defar masque dañu jublu woon ci defar masque parce que réew mi toll woon na fi nga xam ne ni parmi les mesures barrières y avait le port de masque. Mm-hmm. et on s'est trouvé que nous étions dépendants dañu dépendroon ci réew yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. toll na woon nañ fu nga xam ne ni Sénégal jaaxle woon nañu parce que bu masque demee ba manqué d' abord ñu waroon ñan ñoo waroon njëkk jël sol masque bu feebar bi amee mooy ñi nga xam ne ni ñooy recevoir maladie. Mm-hmm. donc moom mooy. ñi nga xam ne ni mooy le personnel de santé ñoom ñoo nekk en première ligne mm-hmm. parce que bu ñu xoolee dellu gannaaw Ebola euh, personnel santé yu bëri demoon nañu génn nañu àdduna parce que en fait euh, ñoom respecté wuñu woon yenn euh, kii protégé wuñ leen woon quoi mm-hmm. te loolu aussi contribué na beaucoup à la mortalité ak évolution maladie bi parce que nit ñi demoon nañu ba dañ doon éviter di accueillir maladie c'était le cas également pour euh, euh, kii bi donc il fallait que ñu wut ay masques yi nga xam ne ni yi nga xam ne ni ñooy ñooy euh, nekk en première ligne au moins ñu doter leen de masques ak de de de d'équipement de protection individuelle. Mm-hmm. bon loolu manqué woon na réew mi ci réew mi ba finalement dañu euh, ñu ne. Euh, du ñu rek la laaloon parce que laaloon na même France parce que France ñoom dem nañ ba nga xam ne ni amatuñu woon ay masque masque ñi amoon stock dañ ko détruire woon mm-hmm. léegi il fallait pas que ñu wax population bi ñu sol masque mais en naa ñu régler problème mu ñi nga xam ne ñoo leen di recevoir alors euh, le port de masque le Sénégal tourné nañ ci France ñu ne ñu taluñu leen boobu fekk na Chine ñi nga xam ne ni fa lañ doon jëndee ñoom tamit joxe nañu ay ordre comme quoi que lépp lu ñuy produire nañ ko gàdde pour ñoom. Mm-hmm. alors loolu sax euh, jàngat la aussi man je pense que euh, occasion la pour ma lancer message pour gouvernement bi lii am nañ compétence am au moins les les équipements de protection individuelle que ñun ñu ñu réaliser ko suñuy bopp ah am nañ fi ay toolu coton. am nañ fi ay kii lépp lu nga xam ne ni mooy les consommables les disposables médicaux mm-hmm. on on est en mesure de pouvoir les fabriquer et d'avoir cette indépendance mm-hmm. et cette souveraineté waaw covid bi war nañu jàngal lu bari waaw covid bi jàngal nañ ci côté boobu donc masque yi il fallait que ñu trouver une solution ci la ñu ne bon écoutez am na ay modèles yi nga xam ne ni France bu mu jaaxlee dañu obligé dem comme le centre hospitalier euh, universitaire de Grenoble les médecins dañ doon opérer dañu am ci masque léegi comment il fale fair ci la ñu concevoir li ñuy wax le modèle patron de Grenoble ay tailleur lañ dem avec des filtres ñu testé leen normé qui ne laisse pas passer le Covid parce qu'il répondait à un maillage qui est inférieur à euh, ou égal à micromètres boobu la ñu jël ñu defar genre masque bi nga xam ne ni ñoom dinañ ci mun a mun a mun a sol respirer ci bu baax ba nga xam ne ni Euh, dinañ ko euh, mun a raxas laver ko réutiliser ko donc et même stériliser ko donc ci la ñu lancé ce modèle CHU de Grenoble kii euh, au moins en attendant que masque yi ñuy ciy jot. Mhm. mun leen permettre ñoom ñu mun def seen liggéey. donc ñun aussi bu ñu nekkee confronté à ça non seulement on devait aller vers le port de masque pour les populations ñu ne bon léegi ñu commencé inspiré wu sur. les, les modèles euh, euh, AFNOR c'est-à-dire qui sont de masques yi nga xam ne ni France adopté na ko ba pare au mois de février ñu jël ko ñu reproduire ko fii léegi ci la joxe joxee euh, kii mais c'est ni ñi lu ñu xamul mooy masque bi nga sol bi nii. Mhm. bu fekkee ni yu importé yi la. Euh, dafa war a am ñetti couche ba am couche interne couche externe ak couche au milieu. couche au bi filtre moo ci war a nekk kii boo ko xoolee am na filtre ci biir. Mm, mooy bi ngeen defar nii pour euh, force de défense yi. waaw dafa am filtre. Mm-hmm. waaye yii de moom amul filtre. waaw amul filtre mm-hmm. donc peut-être dina téye sa poussière ak yooyu waaye du téye germe bi mu jàll. alors donc euh, euh, malheureusement ñi nga xam ne ni ñoom ñooy les artisans. ils avaient une bonne volonté. mais amuñu les si am nañ les moyens. pour filtrer mais waaw c'est-à-dire que euh, bëgguñ ci woon de cest à dañ ñëw rek ñëw bi yomb na mais dafa am tissu yam du n'importe quel tissu ngay jël nit ki bu solee masque il faut mu mun ci noyyi bon masque bi tamit warul jàllale ndox waaye war na jàllale air. donc euh, war na jàll la ngelaw nit kii tamit bu ko solee war na mun a noyyi nekk à l'aise mais loolu suñu tailleur yi xamuñu loolu. <laughs> loolu formation la laaj di nga xam ne ni c'est scientifique. Mhm. waaye moom yéen a ko xam jël tissu rek euh, n'importe quel nit ki mun na faat mun na mun na ko fat mhm. non seulement na ko fat te du ko jëriñ parce que euh, am na maillage bu nga xam ne ni germe bi daf ci jàll du poussière parce que microbe kii microbe boobu moo gën a tuuti sax bactérie. moom ci yi gën a tuuti yi la bokk donc il faut mu am filtre yi nga xam ne ni vraiment du ko kii du ko bàyyi mu jëm mu dem. Mm-hmm. d'accord voilà donc euh, c'est ça euh, madame Diallo. Mm-hmm. Euh, bu baax. merci moi aussi maa leen di gërëm di gërëm auditeurs yi Rewmi FM. Mm-hmm. di ñaanal tamit Rewmi FM. ci tànk yi ñuy dëkk yi. yàlla euh, yokk leen. Euh, ba ngeen bokk ci organe de d'information yi nga xam ne nii vraiment seen liggéey yëpp euh, pour euh, informer population yi la. Mm-hmm. pour yokk kaaraange ak koom-koomu réew mi la parce que da ngeen di indi ay experts. Mm-hmm. ñuy conseiller population yi mais aussi di demander les autorités pour ñu seet yoon yi nga xam ne moo gën a baax pour que Sénégal gën a jëm kanam. voilà. en tout ñun ñoo lay jaajëfal bu baax tey euh, nga jël sa temps ñëw waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom mooy wàllu wér-gu-yaram ñu la ciy jaajëfal bu baax xam nañ ne jot amul donc euh, ci jamono yi parce que yow da nga gàlloo ñaari mbaxane da nga nekk koo xam ne euh, colonel nekk en même temps aussi koo xam ne da yëngu ci wàllu wér-gu-yaram en tout cas dañ la ciy jaajëfal bu baax a baax di fàttali ni tey ñu ngi doon dalal docteur Elimane Amadou Sy moom xam-xamam mu ngi wàcc màcc ci wàllu garab wàllu pharmacie wàllu industrie ci li nga xam ne moom mooy wàllu garab donc ñu doon waxtaan ci Covid bi ak ni ñu ko yoree ci réew mi waaye tam doon waxtaanee wàllu garab mu nekkoon waxtaan gu am solo di leen jaajëfal bu baax mbokk yi ñu doon déglu ci la 97.5 matu Diallo moo nekkoon ci kàddu gi may wax ne rek mën ngeen dégluwaat émission bi ci euh, point www.rewmi.com wala suñu chaîne YouTube Rewmi officiel. ñu leen di dig daje vendredi prochain incha allah 18h jàpp 19h ci seen euh, rajo Rewmi FM 97.5.